nekk ci ndox mi ak yeneen yi nga xam ne dañu koy jàlla euh, jàppale waa ONAS ak sapeur pompier yi nga xam ni ñoo waroon dem sur le terrain daal di jàppale ñi nga xam ni ñoom la ndox mi euh, sonal mu nekkaat nag kaa boo xam ni tax naka tey dafa yeesaat waaye mu yee yenn ci ay jëfin yoo xam ni xamuñu fan la mujjee wala koppar goo xam ne injecté woon nañ ko te xëddaan fu rees na bu ko def benn fàttali bu am solo mhm. ci plan décennal bi muy junju nii 766 milliards de francs CFA waroon ci 2022 lijjanti wàllu mbënd ci réew mi et d'ailleurs annoncé woon nañ sax beneen plan te bee pareegul woon ak coow li mu jur ci mbirum 766 milliards on se rappelle même jamono ji ñuy wax ni waaw fan la koppar yi dugg même assemblée nationale amoon nañ ci taxawaay euh, commission d'enquête la ñu bëggoon fii finalement mission d'information mujjul fenn coofak ca Kaolack nga xam ko bu baax yuuxu nañ ci ndox bi yeneen gox également ministre bi ñu dénk wàllu Cheikh Tidiane Dièye ma nga taxawaay bi mooy lijjanti li fi li fi li fi li fi ne le temps que nag ñuy ñëw ci assainissement bi temps bi muy jël pour li ko constat yi bëri ma fi ne lii am nawet ba tey mooy am mu mel ni comme ni mu ko waxee léegi laaj mooy koppar yooyu yëpp ñu ci tudd mënul tax ba ñu lijjanti mbiru mbënd ci réew man euh, jàpp naa ne le plan décennal en question euh, c'était euh, échec la woon parce que 2012 à 2022 pratiquement question wu inondation chaque année day revenir Euh, donc xaalis euh, boobu il y même un débat passionnant entre euh, Ousmane Sonko et Lassana Gadji Sakho à l'époque euh, DG de l'ONAS actuellement nekk PCA Apixan ouais. Euh, mais li li li li doon li doon euh, gën a frappé les Sénégalais mooy dafa meloon ni aussi longtemps que plan décennal bi di avancé inondation bi di gën a nekk un problème je ne dis pas que ni le plan décennal n'a rien fait am na loo xamante ne Euh, effectivement ay yoo xam ne quand même nañ voilà boo demee Dalifort boo demee. très bien Mousdalifa mm. am na ci. Mm. am na loo xamante ne nag bu tawee ci yenn proportion yi moom mënul ñàkk mais en vérité bu ñu defoon euh, plan d'assainissement bi war dañuy évacuer mu dem. ndox mi mën na bëri mais euh, quelques heures après euh, day kii donc di masawu ñi nga xamante ne déjà euh, loru nañ ci Kaolack. Cofak Touba. ak yenn kiiw banlieue bi et tout mais jàpp naa ne foog foog euh, euh, ce nouveau régime là mu jël euh, la question de l'assainissement Euh, très très très au sérieux parce que li fi doon xew ay taf yëngal la rek. Hmm. et à chaque fois euh, plan d'urgence plan d'urgence d'accord mënul ñàkk nag Orsec mënul ñàkk ñëw. ci contexte yoo xamante ne bu mbënd amee il faut nga gérer urgence yu conjoncturelle bi mais. tout en sachant que ni foog ñu gérer affaire bi de manière structurelle c'est-à-dire euh, tey jii nii ñi nga xamante ne mbënd nañ mais foog nga ñëw apporter leen ay pompes gérer les les les les choses euh, courantes te ci ginnaaw nag foog mu am euh, plan d'assainissement boo xamante ne mais Dakar ni mu mel bu ci boolee mbënd day compliqué. oui mais da ngay laaj beneen mooy ni. opération pré hivernage yi. waroon na def impact aussi parce que curage yi amoon na. bii ne mais teewul constat bi ci ministre bi ñu ko dégloo ca Kaolack mooy ni am na yu ñu bouché. no am mu même la population. non am na loo xamante ne comportement population yi la loolu moom buñ ko buñ ko bañ du tout am na yoo xamante ne euh, moo tax euh, ci ci ci ci contexte hivernal bii nii. Hmm. Euh, premier samedi de chaque mois. yéex na tuuti na. Mm-hmm. Mm-hmm. le président Diomaye dafa war a woote chaque dimanche. chaque dimanche waaw. parce que. ci mois bii nii ñu génn. Hmm. Euh, juin juin bi dem na ONAS euh, jéem naa xool est-ce que effectivement euh, liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def avant l'hivernage muy curage yooyu ngay wax ak yooyu. Hmm. ndax defoon nañ ko mais malheureusement amul woon. amul woon ay opération mm, pré-hivernale. non pourtant ONAS amul woon amul woon du tout parce que en tout cas daal man man moment bi ma fay dem. Hmm. je je pense boobu docteur Cheikh Dieng. ñu ko voilà. Euh, xam nga namee nañ ko lu yàgg jëlagul fonction. c'est ça mm-hmm. presque est-ce que est-ce que est-ce que jot motul mois sax euh, diggante bi Mamour Diallo di dem ak moom ba muy ñëw. contexte boobu noonu yëpp ñoom defuñu dara. alors que ñu ne ma moment boobu noonu daaw fekkoon na def nañ li ñu war a def yëpp nga xaar euh, taw bi bu ñëwee rek affaire yi kii mais moment boobu noonu bi daara defuñu ko woon donc kon man parfois euh, moment boobu noonu je m'attendais au pire mais nag euh, foog ñu régler affaire yi définitivement am na ay points yoo xamante ne fii nii Philippe Senghor apparemment démb euh, ña nga doon tëm mais dafa mel ni euh, truc boobu noonu nekk foofu noonu genre point boobu noonu mooy gën a aggraver cas bi parce que boo xoolee boo wàccee kii bi rek géej lay doon foofu bon paasam mu ngi wax léegi BRT mais parfois yenn travaux yi nga xamante ne pour man euh, kii bi dafay war a doon euh, fluidité mais dafay mel ni day gën a concentrer affaire yi donc Dakar c'est très très très très compliqué donc euh, le docteur Cheikh Tidiane Dièye il a du il du travail. waaye ouais. ici comme euh, à l'intérieur du pays. pays euh, Touba ak yenn kii. am na liggéey bu parce que Dakar je comprendre euh, parce que boo demee gox bu ñu ne la fii da ngay waxi naan. waaw c'est problématique. Ah, waaw xam nga. Euh, apparemment. waxi apparemment cité des eaux. Hmm. cité bi ndox ay ndox la di. donc foofu noonu boo fa tabaxee après voilà mooy loolu. Euh, hmm. téléphone yi s'il vous plaît. Euh, ñenn ñi ne technopole ba léegi bu ñu deful nank gars yi lotissé ko jaay foo ciy zone non aedificandi yi. fa naka nga ciy génne donc euh, question inondation yi régime bii nii na ko jël très très très au sérieux parce que d'après sa que j'ai compris ak li euh, météo di joxe comme prévision. Euh, di ndox bi day bari. te foog ñu am nag ah, mécanisme foog ñu am mécanisme yoo xamante ne dañ koy évacuer donc kon fi mu toll nii daar daar daar nan bàyyi chaque premier samedi de chaque mois te def ko chaque dimanche. chaque dimanche waaw. parce que loolu dina permettre à ce que yu bëri mais nag tamit le comportement des citoyens jël ay pneu di ko dugal ci ay kii hmm. euh, fa ñuy tëj nga jël ko jaayi feeraay yooyu tamit euh, problème la te dafa dafa dafa amaale ci biir donc daal euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi xel le comportement humain et que les gouvernants des responsabilités parce que j'ai vu le journal Yor Yor dire mu ni le premier ministre s'interroge sur les 60 milliards il ne doit pas s'interroger il doit nous apporter des réponses actuellement ah oui oui fi mu toll nii moom euh, le PM. interrogation moom euh, fi mu toll ñu ñoo interrogé. pour yow balaa mu doon dem ca sans li waroon naa mën a. xam na euh, xam na maintenant fi mu toll nii c'est le moment d'agir ce n'est plus le moment d'interroger. c'est agir ci la nga xamante ne dañ koy jël ci ay milliards ñu ne assainissement. ñu ne plan Orsec. xool euh, problème inondation ay nit ne ko tungaañ ba pare bàyyee askan wi seen coono yooyu noonu il faut que ñu euh, fexe ba retrouver cet argent là def ko fa mu ko war a def parce que c'est en réponse ak li Mansour Faye doon sàkku avant mu fay ñëw waaw mooy nii euh, wàllu assainissement ci benn pàcc bi ñu fexe ba lijjanti leen ko loolu la ne à la place faaw ñu lijjanti xam mais ci la tuddee soixante milliards yi. bien bien bien bien sûr mais il ne doit pas s'interroger actuellement le PM doit nous donner des réponses mais pas s'interroger parce que fi mu toll nii moom interrogation yi ñun ñoo ko yor moom euh, dafa nekk ci position posture boo xamante ni il doit nous donner des réponses mooy nu mënu woon ñàkk bañ a xam. li waaw 60 milliards li ci ne ñoo communiqué. no non il a tous les il, il a les atouts il a il a les outils pour nous fournir des réponses sur ça. mais des réponses aussi sur la conjoncture sur les inondations ci yii nii yëpp donc fi mu toll nii c'est le temps d'agir et i il a demandé à ce que fii ak lu lu lu gàtt ñu lijjantil ko wax ko mbiru 60 milliards yi fan la féet waaw fii nañ ko lijjantil mbirum 60 milliards yi mais moom it nañu lijjantil mbirum inondation bi parce que euh, conjoncture bu jafe la euh, ay euh, c'est-à-dire yooyu noonu li tax li tax euh, plan Orsec mënul ñàkk mënul ñàkk ci urgence certes mais nag ay ay ay ay yàqule yu bari ñoom ñoo ciy am dem ak dikk bi carrément j'ai vu même des accidents ci. Euh, parce que nawet moom nawet dañ koy waajal. Hmm. maanaam chauffeur sax day waajal otoom pour nawet. rawatina ci dëkk bu mel ni Sénégal nga xamante ne da ngay taw ñetti weer. noppaliku neuf wax dëgg yàlla war nga am mën a temps wu y a ah, des pays en Afrique yoo xamante ne douze mois sur douze da koy taw. donc comme ñun ñetti weer kese la war nañ mën a parce que gouverner aussi c'est prévoir am jël toutes les prévisions nécessaires jël les mesures yi nga xamante ne idoines pour que euh, nawet bi ñu dund ko sans sans. boole ci tamit li jënt yi ñi ñuy wax ni dañuy business it ci ndox mi. ñàkkul munu ñàkk. mënul ñàkk loolu mais yooyu yooyu yooyu yooyu côté beneen beneen côté loolu laa wax ne. Ah. interrogation moom euh, il s'interroge mais na activer ses services. pour ñu apporter des réponses sur euh, sur sur ça. qu'est-ce qui nous Mais... empêche de faire comme la Côte d'Ivoire ñoom bi ñu bëggee régler. Mm. Euh, problème mu euh, inondation dañ koo lijjanti ñun lan moo ñu teree régler problème bi nga xam ne chaque année ñu wax ci. mais ñetti weer ñetti weer la c'est-à-dire hivernage ñetti weer la Sénégal gouvernement bu sérieux war na mën su leen neuf mois. Mm-hmm. nga jël toutes les mesures nécessaires pour que askan wi du léegi nag mu taw léegi nii fenn fees loolu garaaw loolu du inondation loolu du inondation États-Unis France ak fépp lay am loolu en quelques heures dafa war a dem mais muy na fenn yooyu maladie yi hôpital sax dem ba tëmb euh, c'est quand même inquiétant am yoo xam ne day yàgg ba muy jënde ak i jaar <laughs> mais dëgg la bien sûr am na fi euh, am na ay gox goxaan yoo xam ne wax dëgg yàlla xale yi boo demee bu fekkee seen parents yaa ngi fa ñoom dañuy feebar ba jamono ji ay dégâts collatéraux dafay gis na parce que inondation bi jur après épidémie Mm-hmm. ah c'est compliqué Ngoné Saliou yàgg nga ko dund ah mbënd bi saa amee chaque année di nga wàcc sur le terrain xool. Mm-hmm. li nga xamante ne moo aju ci impact yi. Euh, ren it également constat bi comme ni ñu ko defee ci Dakar def ko ci Kaolack def ko également fi nga xamante ne.